jërëjëf président Khalifa Sall président conférence des leaders Yewwi Askan comme ni mu ko waxee liggéey bi ñu yor jëm ci élection dafa am ay phase yu bare yàlla def phase du dépôt yi pare nañ ko mu am phase de contrôle judiciaire yi am également phase du saytu saytu boobu mën nga ko def ci liste comme mën nga ko def ci liste ñeneen ñi fait des fàttalikoo ci élection locale yi am na benn jamono ñu des mandataire qui sont nekk ci commune Nous allons dem ci préfecture yi ak sous préfecture yi pour nous a la liste concurrent yi fa nekkoon surtout liste Benno Bokk Yaakaar yéen ngi fàttaliku loolu te pour élection locale article 284 alinéa 5 moo wax mais ci élection yi di élection législative lu a dafa am ko disposition buy may mandataires yi dem xool yenen liste yi moo dans la direction générale des élections la yendo, ndaxte article 177 du code électoral dernier alinéa dafa jox la possibilité mandataire bu ne nga dem ci liste yi fa nekk ñépp ndax liste yooyu jaadu nañu wala jaaduwul yàlla def ñu def loolu bis bi yépp ñu yendu fa xool liste Benno Bokk Yaakaar xool liste nationale xool benn par benn tur yi ni mu tegloo ba ni mu jeexee ci titulaire yi def liggéey boobu ci suppléant lii nag ñuy wax nii Comme le président Macky Sall bu ko déggee fa lay pare Sénégal ndaxté ci liste Benno Bokk yakar 43e position ci liste suppléant yi jigéen moo fa nek 44e position ci liste nationale bi suppléant jigéen aussi mon fa nek kon 43e jigéen le 44e jigéen 43e bi ki fa nek mi ngi tuddu Rakoye Ndaw né le 12 3 1965 44e bi ka fa nek mi ngi tuddu Maymouna Ndiaye le 8 11 1966 pourquoi ma lim leen ndaxte lii may wax bi mu amee yamuñu rek ci constater que xumtoo ko nopi dañ wo commission bi yépp ba ñom ñëpp ñu ñëw toog Sénat top président commission bi top, direction générale des élections top bi ñu gisee ñombe bi ma ni ñi nga xam ñoo nekkal Sénat nga xam que lépp lu ñu déposé dañ ci am copie ma ni leen jox leen ma copie ma est-ce que c'est une copie méngoo na ak copie la direction générale des élections ñu jox ma bi ñu ma joxee ñu ñaari copie nous ñoom ñëpp di gis parce que lu amul seede baaxul ñu gis ni effectivement li nekk ci copie direction générale des élections moo nekk ci copie Sénat ñaari jigen yoy ñom ñoo topanté kon lolu je pense que limi muy tekki leer na moo tax ñu ni le président de la commission comme li amna nañ def PV de constat yalla def na comme mbir mi dafa ni weng lim ñu bañalon beulé passé nga xamni ni buggul woon def PV recevoir suñu dossier bi ñu ñëwé bi yoon mu nangul ñuko ndax té lépp a leer ñëpp ñu wan leen ñu génné ma demander ñu génné ci dossier wu Benno Bokk Yaakaar dossier wu ñaaru jigen yi parce que li ñu doon bañ mooy ñu ñëw ni may mun a xëy la wala ñu ni tay jii roxé goor la moo tax avant sax ñuy dressé PV bi dama leen indi leen kees bi ñu indi ma génne ñaari dossier wu ñaari jigéen yooyu teg ci taabal yi bi ma leen di woon liste bi ni ñu toppantee ma wan leen en même temps ñaari tur yooyu ku nekk seen référence moo tax nga gis ma am ko nii mu nangu kon ni lii wér na li nii leer na ci la defee PV bi dressé ñu ko bi mu defee PV bi ñu dressé ko ci kanamu Sénat kanamu représentant ou commission bi quand nous président ou commission bi mu déchargé def ci tampon signé ko kon na ñëpp xam ni Benno Bokk liste mu dañ koy rejeter liste nationale am kon amul liste nationale ci élection locale yi ci élection législative yi ñu jëm kon loolu la d'une jii nii suñu liggéey bi nga xam ni moom lañ doon def wane preuve à l'appui ak décharge bi nga xam ni moom la ñu defal ci kanamu képp ku fa nekk nga xam ni kenn du mën a tey jii nii dellu si kon bu ñu résumer loolu en français on dira juste qu'on s'est prêté à l'exercice permis par le code électoral comme ce fut le cas lors des élections locales, en son article 284, alinéa 5, il était permis pour tous les mandataires dans les différentes collectivités de se rendre dans les préfectures et sous-préfectures pour vérifier les documents déposés, s'ils étaient conformes et vérifier également si les listes donc déposées respectaient la parité et respectaient également toutes les conditions qui avait été arrêté au niveau de la loi. Pour les élections législatives, cette même disposition existe en son article L177, dernier alinéa, qui donne la possibilité à chaque mandataire de vérifier toutes les listes et les listes donc concurrentes. On s'est intéressé toute la journée sur la liste de Benno Boku Yakar. On s'est intéressé à cette liste-là. Quand nous avons procédé à la vérification, on s'est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43e et 44e position, il y a deux femmes qui se suivent. J'ai donné tout à l'heure leur nom, c'est Rokhaya et Maïmouna la première à la 43e et la deuxième à la 44e position. Et quand on s'est rendu compte de ce non-respect de la parité, on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Sénat qui étaient présents. Nous avons demandé leur copie qu'ils nous ont donnée. Et on a fait la comparaison entre la copie reçue de la Direction générale des élections et celle provenant de la Sénat. Et effectivement, sur ces mêmes positions et sur ces différentes listes, il y a deux femmes qui se suivent. C'est pour cette raison que nous avons demandé devant toute l'Assemblée à ce qu'un PV de constat soit aujourd'hui dressé et qu'il nous fasse une décharge, ce que les membres de la commission ont accepté, ce que le président de la commission a accepté. Et nous avons tenu à revenir sur tout ce qu'on a vu. Et pour cette fois, différemment de l'autre jour, il n'avait pas voulu prendre nos documents, encore moins nous faire une décharge sur ce qu'on était venu déposer. Pour cette fois, comme c'était flagrant et c'était une chose constatée par tous les membres qui étaient présents, il a accepté de nous dresser, de nous décharger le PV que nous avons dressé. Et vous avez ici la signature de la commission le cachet également de la direction générale des élections qui atteste que la liste proportionnelle, donc liste nationale de Benno Bokuyaka ne respecte pas la parité et par conséquent, c'est une liste irrecevable. Ce qui veut dire que Benno Bokuyakar ne peut pas compétir, ne peut pas participer à ces élections parce que sa liste est irrecevable. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je donne la parole au président Ousmane Sonko.